Euh, kooku mën naa ni suma rakk la suma doom la sax fa ndaxte yàgg nañ foo xam ni dama mun a boros ci li ma wax ci moom li ma xam ci moom rek mooy man maay moom wax dëgg euh, lépp lu ñuy wut ci rakk dama ko am ci moom ba mat sëkk làmb nag xaw a doy waar tuuti mais daal ci gàttal mënatuma am rakk bu ëpp Yékini Junior ci làmb moom ak ñi muy àndal parce que su ma diggante ak moom moment bi ma koy wax ni ñëwal nga dëkk ak man booba kenn xamu ko ba tey ñu xam ko kon lañ dund xajul ci waxtaan bi nit ku baax la am kilifa yu baax papa muqaddam la baayam di mag bu baax Euh, ci gàttal daal lépp kenn mënu koo wax waaye Papa Ndiaye man maay moom mooy man te dootuma am rakk bu ko ëpp ci làmb. Papa Ndiaye mooy yàq yàq yëg mooy. moo yëg ni junior. <laughs> loolu nga am ci témoignage boo ko mën a wax. waaw à ñaanal ko lim bëgg ci sport ak àddunaam ci lu baax yàlla defal ko. mooy Yékini Junior. Yékini c'est Yékini senior c'est une leader mais mais mais moi il dit tout le temps moom fils wuti leader moderne <laughs> euh, euh, son air c'est pas c'est pas un lit Fall Boy Naar Fall il m'a dit Khadim champion bu dëkk ci ay sikaab Yékini senior c'est une technicien c'est un garçon très poli c'est un frappeur Mais parce que le dernier, son dernier combat, il a gagné, la a venir. Mais il y a un euh, contre Mouranta parce que ya a un Parce que fissure dans les sacs, sacs écrits, quand il y a c'est pas bon pour le restes, c'est pas bon pour les perdants. Parce que entre Yikini Senior et Yikini numéro 1, vraiment cette compagnie, euh, normalement, cette fissure-là, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon.